ci nguram moy aji setantal ji mbiri moy aji dogal ji ay dogalam no ngi tudda ak sellam moom mi nga xamne mom rek di bor moy aji not ci nguram moy borom asaman yi di borom sufi yi mboolem di nekk ci diggante asamaan ak suuf lépp ci momelam la nek aji tedd ji aji jeger ji jaamum yàlla na julli ak sëlmal nekk ci sayiduna muhammad moom mi nga xam ne moom la yàlla tànn mooy jaam bi nga xam ne moom la yàlla yebal ci ay jaamam muy bégle ak di xuppe yàlla julli ak sëlmal nekk ci moom moo ki ñooñam gis saxaabaam ya nga xam ne ay boromi ndëgër laay lañ ay boromi gis-gis yu kawe lañ mbokk yi li ñu bëgg a waxtaane tey dañu ko bëgg a tënk ci xadisu yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu alayhi muy xadis boo xam ne xadis bu siiw la boo xam ne ñiy dégg ñëpp yàgg nañoo dégg boroom xam-xam yi di ko nettali yonent yàlla muhammad dafa wax ne inna allaha yabaadu li hadihi al ummati ala rasi kulli may yujaddidu laha diinaha nee na suñ borom day faral di yebal ci bopp bépp téeméeri at ab xej ci ay xejam ab jaam ci ay jaamam ab xaritam ci ay xaritam ngir mu yeesalal ko diiney xeet bi di xeetu sayyidina muhammad loolu nag yonent yàlla muhammad la ko suñ borom jagleel ndax ku dul moom kuñ mos jox diine ci kaw suuf kum ku dul moom sa diine dana mos a ràpp waaye rasulullahi nag diineem dafa war di atte jamono ba keroog suñu borom di lem ab dëndëm te muy suuf si moo tax diine ji sëñu ta màggat te doomu aadama nag lépp lu bees ci moom lépp lu lu lu lu lu miin day daal di màggat ci xolam màggat ci xelam màggat ci ay bëtam ne diine moom du màggat waaye ci xoli nit ñi lay màggat màggat ci seeni xel màggat ci seeni bët loolu la yàlla dogal àdduna lu fi yàgg noonu lay demee innal jadidayn ida mastawlaya li jadidin addana yahudil bila àdduna lu fi yàgg ràpp diine sayyidna Muhammad nag comme dafa war di àtte jamono yépp loola moo tax buñ demee ba jëmmi jamono suñ boroom tànn ci ay jaamam yebal leen ñiiw jamono yebal leen ci aw nit ci ak kuréel ngir ñu beesalal yonent yàlla Muhammad diineem suñu jàmbaar ji nag di Cheikhul Khadim bokk ci jàmbaar yooyu nga xam ne suñu boroom daf leen a tànn ngir ñuy beesal diine Cheikhul Khadim mu jaddit la rénovateur la dafa ñëwoon ngir beesalal Sayyidina Muhammad diineem loolu nag moo ko waxal boppam nee na wa min ajaayib ibni abdillahi صلى عليه بسلام الله باق أضاء عرضه بالأولياء إلى القيامة وكل ولية شيخ خادم نانا دا بوك تي كيمان رسول الله دومي عبد الله جل وخ ومن عجائب ابن عبد الله نانا دا بوك تي كيمان دومي عبد الله جل يالا يالا جولي تسل مال تي موم نانا يالا ميغا خا نني باق اجي ديس لا أضاء عرضه بالأولياء نانا دا فاي فرال دي ليرال سوفام سي تي اي وليو ba bis penc ba ngir lan sunnatahu wasaanaha an biddaan tabshiruhu qadimahu bi fastaat ngir sunnat yonent yàlla muhammad si bañ a màggat xeju ya xeju yàlla yooyu suñu borom deebal ñu ñëw di beesalal yonent yàlla muhammad di euh, sunnam si mu ne nag tabshiruhu qadimahu bi fastaat nee na ki muy liggéeyal te mu yonent yàlla muhammad nee na moo ñëw bégal ko ci fas dax bi ma tumar gañu waxoon rasulullahi wa arid anil mushrikin dafa ñëw ne ma bàyyil nëbbutu gi ak làqatu gi waxal ki nga doon te wax nit ñi li la tax a jóg mooy waxal nit ñi ne leen ab mu jaddin nga li la tax a jóg mooy beesal sunna sunnat yàlla muhammad salawatullahi wa salaamu alayhi mbokk yi cheikhul xadim lii ko indi woon jamono moo tax mu ne amarahu salla alayhi llahu fi ali wa sahbi wa mawalaahu bi an yuallima almuridina wa man yaqbalu nusha minhu nusha min ahli zaman mu ne rasulullahi moo ko digal ne ko xamalal murid yi nga àndal ne ak képp koo xam ne nangu nag laa biire wax leen ne leen wa annahu awsalahu an taxliya li rabbihi mubashiran bi taxliya suñ borom fóotal na Seexul Xadim ay ndabam maanaam raxasal na ko ay ndabam ba ndab ya set wecc mu duy kook leer duy ko xam-xam ak mboolem lépp loo xam ne dañ ci omat nit jëme ko ci yoonu yàlla mu ne ko kon nag waxal nit ñi neleen leen li la indi ci kaw suuf mooy beesal rasulullahi sunnaam waaye omat nit ñi yóbbu leen ci seen borom bañ xaritoog moom bokk yi Seexul Xadim lii ko indi woon mu amee nag ay façon yi njàngale njàngale wii yoo xam ne daf ko doon jàngale bi ci njëkk nga xam ne ci la doon yar ñu bari mooy jëf Cheikhul Khadim jaamu bu yàlla la boo xam ne boo jamono rek moom nekk ak moom nga di ko gis muy jëf ngay gis bu la waxut sax nga jub boo toppee ci ginnaawam ndax ñaari tànk la doon doxe benn tànk bi ci alxuraan la ko la la ko teg bi ci des ci sunna si yonent yàlla muhammad salawatullahi wasalaamu yoonam wi di tariqatul muridiya lepp lu fi way sen nit di jëf mbaamu diko ko wax mbaamu diko di ko mu wutek alquran wutek sunna si yonent muhammad sallallahu alaihi wasallam ali koko lolo mu yor jute wutek li cheikhul khadim indi won dar lolo mbirum bopam la waye lepp lu genn alquran ak sunna rek juute wu rek juute dara li cheikhul khadim indi won kon da jëf ñuy gis muy wax ñuy dégg waxi ni mooy lan tomb yim daa tomb ak rëdd yim daa rëdd nga xam ne lam ciy jàngale mooy lam bind ci téere yi alxuraan rek bi ko ñetteel mooy lim bind ci téere yi kon mu doon jëf da ko doon jëf ñuy gis lim doon wax mu di ko wax ñuy dégg ana la ko doon waxal mooy ñi nga xam ne yow ay téere di jàng daa wees ci ñoom ay borom bi jaaw lañ mu di leen tombal di leen rëddal ñun ñii nga xam ne nag dañoo war a yaru ci aw yaru yinam jàng aw njàngalinam te jamono te wuñu ak moom mu bind bàyyil ñu fi ñu ñëw fekk fi mbind bi jàng ko kon mbokk yi Cheikhul Khadim beesal rasulullahi sunnaam moo ko fi indi woon إلى الله بالقرآن وسنة التي هدتني شرفت الكل والقلب قاشا نانت القرآن الكريم أقصد نص ينتهي على محمد صلى الله عليه وسلم عليه نانا كلا ما يالا جندير نانا كلا كو يالا جندير القرآن أقصد رسول الله واي نانا مومد لم صفي ليب تجامونا جلو تعلم نكون te du ngërëmal yàlla indi ko ci ngërëmal yàlla nee na lépp ci alxuraan ak sunna la ko def Cheikhul Xadim nee na qur'aana ahmada laa abxi bihi badala bihi aquudu ila rabbil waral ulama nee na alxuraan yi ñu wàcce ci sayduna muhammad du ma wut mukk lu ma ko wuutale ndax amul lu gën alxuraan ci kaw suuf moo tax ci alxuraan laa jàpp man man Cheikhul Xadim waaye nag bihi aqulu ila rabil waral ulama góor yàlla yi ànd ak man te bëgg a dem ci seen borom ñoom ñëpp ci alquran laa leen ommate ba yóbbu leen ci yàlla mbokk yi Cheikhul neen inni inni li qur'anin wa fiqihin wa hadith munsarifun an kulli muhdathin xabif Cheikhul Xadim nee na alquran ak xadisu yonent yàlla Muhammad nee na ci laa soppee lépp loo xam ne luñ sos ci diine la te muy ay ñaawteef yoo xam ne bokk ci da wax ju baax inni li qur'anin وفقه وحديث منصرف عن كل محدث خبيث نانا تي القران اك شريعه محمديه اك حديث رسول الله mboolem li ma fekkoon jamono nga xam ne dañ koo sos dugal ko ci diine te bokk ji nee na ci alquran ak sunna rasulullah ci laa ko fi génneel ba mu set wecc kon nadaafatuhu min allahwi kulli tahara wa sunnatahu insha rabbi ubayinu laab gi yàlla laabala rasulullah nee na ca laab googee ca la ma yàlla laabalal benn yitte la am ci kaw suuf muy beesal rasulullah sunnam wa sunnatahu insha rabbi ubayy mbokk yi cheikhul khadim beesal sunna sa rasulullah moo ko indi jamono ji ñu nekk nag ñëppay woote woote yi wuute na lool ak woote nag du fi jóg kuy wuy ji nay seetlu kay woote la muy woote kenn ku ci nek yaangi beru ci sa di kap kapar ay nit di joxe ay tur di joxe ay dox ñu top la waye aka bari ci ñom ño xam lañu yor dañ ko coloré diine coloré ko yoonu cheikhul khadim yi nuru ko lol ta fekk ne dañuy wut alal ci ñi nga xam ñom ñoom lañu àndal ne dañ leen yobbu ci yàlla fekk ne ci seen bop rek lañ leen yobbu lol nak mbokk yi lu mata a ya la mbokki Cheikhul khadim neena bu ngeen demee ba jamono gisatu leen muslih mooy koo xam ne dafa baax yëmut ci baax waaye day baaxale bu ngeen demee ba àgg ci jamono joo xam ne gisatu leen na ngeen dellu ci li nga xam ne sama classe gii moom lañ bindoon moom Cheikhul khadim mooy wax li sama classe gi bind ngeen jàpp ci mbind moomee innam tulaaxi muslihan fal taktafi bi ma bihi nasa salfi salaf jii nag dañoo toll ci japp ci mbindum cheikhul khadim mbokk yi ñun dañuy faral di wax mbir njàngalem sëriñ bi njàngalem sëriñ bi njàngalem sëriñ bi dafa am nag ci jamono loo xam ne dañ koo couleur bu ba mu rafet lool ñu tudde ko ñu tudde ko njàngalem cheikhul khadim te doonu ko bu fekkee ne mbokk yi xis yi ñuy ràbbale di ko nettali moom lañ tudde njàngalem cheikhul khadim doonu ko bu fekkee ne di waxtaan ak nit ñi di wax lu tooyal seen xol lu leen bégal ñu bég di mbëkk di daanu di joxe seen alal bu fekkee ne loolu lañ tuddee njàngale Seexul Xadim doonu ko mbokk yi barki démb bi ñuy wàcc màggalu Tuuba la mbokk toog moo xam ne mi ngi toog ci plateau télévision ñu invité ko fa muy waxtaan ci Cheikh Salim Mbacké di nettali ab xissaam du ma ne di nettali ab xissa ndax du xissa xissaam la di tax ma ne xissaam la danaa ko leeral di nettali xissa xissaam boo xam ne nee na Serigne Saliou dafa ànd ak ab sëfóoram bi ñuy wax góor a jéey nga xam ne ku xam Serigne Saliou moom nga ko xamee moom benn sëfóor boobu la amoon mu doon ko dawalal ñu dem ba Ndakaaru mu jënd fa ak nopp si jaboot gu ndaw ba ñu demee ba bay génn Ndakaaru nee na mu ne bi taxawal mu taxaw mu ne ana nopp si jabar gi ma jëndoon ñu ne ko mu ngi nii mu ne nañ ko génn ñu génne ko mu sànni ko mu ne bi mu ko wàccee rek lañ gis yaay ja daal di daw ñëw këf ko nee na sëriñ saa yi ne ñu nekk lañ ci oto bi ñu nekkaloon ci oto sàllaw guddi yi yëpp di mun fexe ba jaamu yàlla ndax nopp si jabar gi ñu jël doomam mu yuuxu rek ba bëccëg moo tax ma ñëw jënd doom ji ngir delloo ko ñam toogal ci plateau ba ña ngay kattasu ak ak ak seeni dënd di rëcc te moom mi nettali loolu bi mu ko nettalee ba nag góor a jéy mi nga xam ne moo doon sëfaru sëriñ Saalih moom ca tudd moom moo génnaat wax ci kàddu boppam ne koo ko mu wax dara amu ci ndax 1970 jàpp 71 ci la sëriñ Saliou gëj ndakaaru te man diiru ma di ko dawalal mësta dem ndakaaru kon mbokk yi xista yi mel nii nag moo bari lool ci yoon bi di ko wax ay nit ñuy daan jël di woote téléphone jox naa la kër baraf sàngam jox naa la terrain baraf sàngam jox naa la oto baraf sàngam yónnee naa la sec jox naa la nangam million boo jógee fii nga woo ma sama numéro gi doon ba tax na yoonu Cheikhul Khadim bi kenn waxatu ci lu wér ñu bari bokk ci ñi ci wax waxatuñ ci lu wér dañu seet li ak seen bakkan loo xam ne buñ ko waxee nit ñi bëgg ñu dem nag mbokk yi ba yegg ci jamono joo xam ñay wax lu wér ci yoonu Seexul Xadim nga xam ne alxuraan ju wér kenn la ñuy wax firee ko na ko yàlla jàngalee wax sunna si yonent yàlla Muhammad ju wér firee ko na ko rasulullahi waxe wax mbindam Seexul Xadim mu wér firee ko na ko Seexul Xadim waxe dañuy am ay jafe-jafe ndax fu ñu toll ñu ngi leen di wutal ay tur ay salafiste ngeen ay ibaadu rahmaan ngeen da ngeen sëñ bi contre yoon wi te fekk na ñay wax loola benn jubluwaay la ñu am mooy xoqatal ñay wax ngir ñu noppi ndax la ñuy wax dafa dëppoowut ak seen bëgg-bëgg dëppoowut ak seen bakkan dëppoowut ak lañ nekk léeg lekk boroomu xam-xam wax li mu wax lépp tege ci alquran tege ci sunna si yonent yàlla muhammad mu tegtaloo ko ci mbindam cheikhul xadim mu noppi nga ne ko salafiste ga am sax baatu salafiste danañ ko wax di jàpp dañ koy xas te fekk ko dañ koo tagg léeg-léeg nga ne nit abadu rahman la jàpp ne da nga koo te fekk ne xasoo ko da koo tàgg danaa ci ñëw waaye fekk nag ka lay wax loola ka wax loola yow mii wax du Seexul Xadim nga contre déedéet ndax am jàngale nam ngay jàngale moom nga contre ndax moom dafa nekkul ci dara Seexul Xadim dafa jëm penk moom mu jëm sow moo tax saa soo jàngalee la Seexul Xadim jàngale woon muy jàngale mu wér mu ne la yow da ngaa sëriñ bi déedéet te fekk na contre sëriñ bi moom nga contre ndax dañuy wut ci dara la Cheikhul Khadim nekkoon moom daf koo wan ginnaaw moo tax saa soo waxee mu bëgg laa wéer ci da ngaa contre sëriñ bi ab salafiste nga jàpp ne daf la koo xase te fekk na xasewu la ko daf la koo tagg diw bu ñu nee diw ab salafi la mooy moom kat ak jaamu yàlla mi ngi koy royee ci yonent yàlla Muhammad ak sahabaam mbokk yi loola képp kuy roy sunu génnoo ci. bu ñala ne laa ibaadu nga moy yow jaamu bi yalla nga fi ku fi bëgg bëgg ta doon jaamu bi yalla bu fekkee ne nag dañ la ko ayibale te fekk ne la tax ñu wax la ko mooy dangaa fekk ay mag ñoo xam ne dañoo sonn ci diine def ci lu ci kenn deful yar ci ay mag jàngale ko seen diine jaraloon la lu nekk ba diine taxaw nga ñëw fekk fa diine jooju jàng ko ba nag waat bëgg a dil mba nga woyofal mba nga e sabal sabablal mag ñoñe loolu moom buñ la tuddee na nangam loolu moom dañ la xas waaye nag fekk koo xam ne alquran ak sunna ju wér kenn lay jàngale di jàngale njàngale magi ah nga ne ko salafiste nga xasoo ko da ko tag mbokk yi cheikhul xadim jaamu yàlla la ñu digal képp koo xam ne nag yaa ngi jaamu yàlla te jaamu woo yàlla ci sunna si yàlla muhammad sa jaamu yàlla boo gis suñu borom du ko nangu rajaaw jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yaati cheikhul xadim ne nag koo xam ne yaakaar nga aljanna te jaamuwoo yàlla ci sunna sunnateel muhammad nee na yow ci ay waru nga nekk waru nag mooy jàpp ci mbir te jàpp ne lii nga jàpp noona na du noona yàlla ñu yàlla musal ci loola moo yaa ayyuhan nabiyu daa duniyaaka xablal yow mi nga xam ne ko am xel nga jiitalal sa dunduk alaxira ci sa dunduk àdduna wanal ginaaw sa aduna te jublu sa alaxira mumtaxilan amra ilahi ilahika jali mu sunnati xayru rasul top topal ndigalal yàlla top sunna sunnati yàlla muhammad ndax neena na is takunu salima wa fi ikhtilafiha takunu zalima nee na ci topp sunna si yonent yàlla muhammad ci la nit di mucc waaye ñàkk topp sunna si yonent yàlla muhammad ci la nit di loroo kon mënee sota jaamu yàlla te jaamu ko royewuñ ko ci sunna si yonent yàlla muhammad salawaatullahi wa salaamu alayhi loolu la sewul xarit jàngale ci li nga xam ne nag ci laay daaneel mooy dénkaare boo xam ne Sëriñ Tuubaa dafa ñu koo dénk ñun taalibe yi nañ ko bàyyi xel bu baax te ndénkaani loolu ñu di ko nafa te ñu bàyyi wutkati alal yii nga xam ne seen wutum alal mi nekk tax na képp koy jàngale njàngalu njàngalem Cheikhul Khadim ñu di la ayibal ngir bëgg nit ñu war na ginnaaw mbokk yi Cheikhul Khadim nee na man talabal wasula lil jalil falya'tasim bi sunnati rasul loolu taalibe yépp lu ko dénk bépp taalibe boo xam ne nee na da nga bëgg a yegg ci yàlla te mbokk yi ab murid al murid al muridu sadiq al muridullaahi mooy ku ma jaxasoog yàlla muridullaahi mooy ku ma dem ci yàlla mbokk yi ku jóg te jëm ci béréb sa pas-pas mooy yàgg ci bërëb am déet képp ku jóg te jëm ci béréb sa pas-pas yàgg ci béréb murid yëpp dañoo jóg seexul xadim di leen ommat fu mu leen di ommat jëme leen ci yàlla seexul xadim moom mu nga xam ne mooy ommat ay taalibeem la nee képp koo xam ne dangaa bëgg a yàgg ci yàlla bul mooy ci lenn lu su sunu lu nu sunu sunu yàlla Muhammad salawaatullaahi wa salaamu nga ne ko waaw nu may mooyee ci sunnaam mu ne la bi ma mu mutiaxan la yamin fii zahirin wa batinin an sabil nee na ñi woote bari na lool waaye war na ñëpp ginnaaw kenn dong laa la joxoñ ngir nga topp nga ne ko kokk mu mu ne la waajoo xam ne da nga koo seen muy jaamu yàlla di dox ci siraatal mustaqima nga xool ko biiram ak bitteem gisoo ci lenn lu ci wuuteeg sunu seen yàlla Muhammad nee na boo topp toppal kooka nga ne ko bu ma toppee kooka moom lu may jural mu ne la yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarkil aada nee na Seexul Xadiim ne la kooka boo àndeek moom daf lay ommat ci xam-xam ak jëf maanaam da ommat ci jaamu yàlla waaye jaamu yàlla ga nag day tegu ci xam-xam di la Seexul Xadiim wax ba noppi yar la nga bàyyi xaada mooy yi sa bakkan bëgg tam lay lor mbokk yi ñun li lañu Seexul Xadiim dénk mooy ndénkaane li noo ngi koy fàttali suñu bopp te di ko fàttali taalibe yépp ñii woote bari nañ ñii wax bari nañ waaye ne ñëpp xib ci seeni bët xool lépp lu la nit mën a wax lu wax ja rafet rafet bu fekkee ne ma nga yem ci nettali xissa dong nettali ay karaama dong ni nettali ay ay ay ay ay ay xarbaax nit ñi di daanu ay jël Cheikhul Xadim nee na kooka sori ko nga ne ko ku may jege mu ne la wal yaqtadi la aabidu bil muttabiin li sunnati rasuli ahmad al amin seetal koo xam ne biiram ak bitim wul ak eh, njàngalem yonent yàlla muhammad nga top. nga ne ko ñooñu moy ñan mu ne la man amru bi taati Rahman, wa xasaru bi taati shaytan moy ko xamne bo ande àndeek moom waxtu wu nekk daf lay digal nga jaamu yàlla ta selal ko jaamo ko ci sunu sunu ci muhammad waye farlu ci waja sabar sax moy man amru bi taati Rahman, waye nak wa xasaru bi taati seytaani foo toll it daf lay moytandikuloo nga top seytaani mbokk li moy ndénkaane Cheikhul khadim ne ci ñëpp sax te ñu moytu xissa yi boroom xissa yooyu nag ñooy fekk ñi nga xam ne dañuy jàngale lu wér ci yoonu Seexul Xadim ñu di leen wutal ay tur ngir ay bëri leen ko luñ ci bëgg ña di diglu ñoom nga xam ne ñooñu ñoo leen di jox seen alal ñu bañ a xëpp seeni bët xool ñuy jàngale dëgg-dëgg njàngaleem Seexul Xadim moo tax ñuy ayibal ñay jàngale njàngaleem Seexul Xadim ngir bañ ñu jege leen ñooñu seen bakkan rek lañ nekk ku jóg na leen moytu te dem seet ñi nga xam ne dañuy jàngale Cheikhul Khadim indi woon yaxfirullahu lii wa lakum wa li saa'iril muslimin amin